pour revenir un peu si euh, ñun li ñu perdrons le pouvoir moi je pense qu'il faut le dire et oser le dire les gens le disent de manière démo euh, comment dirais-je xaw ma nu mu ko wax dañ koy rafetal quoi dañ koy kiiwal mais en réalité c'est Macky Sall qui a fait perdre à la coalition Benno Bokk Yaakaar pour man pour plusieurs raisons man nga si bañ d'accord benn raison bi mooy yaay <coughs> un manque de solidarité mais Kébé bu mu la ko bas na la bàyyi nga wax. non non man damay wax man man personne ne peut. ah mais parce que pour pour pour ceux qui me connaissent. non mais mu ni Macky Sall ngeen ko non non déedéet déedéet. non mais bu d'accord mais bàyyi ba jot parole bul ko ko bas. non bul ko ko bas bul ko ko bas bàyyi ko rek mu expliqué da nga wax ma je suis je suis de la coalition Benno Bokk Yaakaar je suis de l'APR je suis membre n'est-ce pas donc de la convergence des cadres je suis le président n'est-ce pas donc des euh, coordonnateurs des cadres républicains de Yoff mais pour dire vrai pour man. Macky Sall moo faire perdre à la coalition Benno Bokk Yaakaar. comment benn bi mooy manque de solidarité bi nekk suñu te mu joge si moom. parce que Banda wax na ko sànq l'élection de deux mille locale de mille vingt deux moo ñëw ba fii c'est les prémices. mooy Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait mais a fait perdre à Abdoulaye Diouf Sarr. c'est le président mais parce que mënuñu jël ku nekk. ku toll ab Abdoulaye Diouf Sarr président jël ko choisir ko ne ko yow yaay candidat pour la ville de Dakar après son chef de cabinet Mame Mbaye mu jël ko bàyyi ko mu nekk candidat et Mame Mbaye Niang tous ses discours c' était contre Abdoulaye Diouf Sarr Mame Mbaye Niang n'a jamais fait un discours pour wax si yeneen candidat yi li muy wax yëpp discours je parle sur le compte de Balla bu saa yu waxee rek day chargé dafa mel ni que moom gouvernement bu mu nekkoon moom contre kii bi et puis mu liwu sénégalais ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du ma si dugg donc loolu moo dem tey ba kii et le même Mame mu ñëw taxaw encore ci di di di di clash euh, suñu candidat Amadou Ba moom ak ñeneen kii mais Mame Mbaye en chef nekk si kanam ça veut dire que lii xew yépp président lu tax ma ne président parce que moo ko seetaan bu fekkee ne moo nekk kilifa gi war a siffler la fin de la récréation bàyyi nit ñi di doxal bu yàqoo dañ naan moom la donc loolu laa ko bi mooy référendum la woon c'était oui ou non la continuité du pouvoir. ou la rupture. continuité rek wala quoi oui ou non dama ne. oui ou non wala la. la continuité du pouvoir c'est-à-dire le pouvoir soit Amadou Ba. oui ak oui. président Macky ou non pour la continuité. oui pour oui ou non pour ñu si ànd. non bu kii léegi bu ñu yi. oui ou non après sénégalais yi la même sénégalais président waxoon ne mooy nekk directeur de campagne le même sénégalais gis. ñu dem ba ba élection yi bañ dugg ba si biir campagne bi ñu naan président jàppale na Amadou Ba jàppalew ko jàpp na ko bañ bañ def cette fameuse ba président am le besoin di woote euh, euh, le secrétariat exécutif national pour mën a joxe encore mot d'ordre alors que le problème de la candidature était réglé depuis très loolu lu nurool il faut aussi que sénégalais ñu bañ leen nax donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañu kii beneen affaire bi fi may jéexale mooy effectivement ñaari adversaire lañ amoon on avait l'opposition comme adversaire on avait le pouvoir comme adversaire comprendre nga li ma wax. déedéet yow kay la ñuy déglu. ñaari adversaire la ñu amoon. adversaire l'opposition en interne non non non globalement. on avait l'opposition comme adversaire parce que dañ am candidat dafa mel ni candidat Amadou Ba pour dire vrai n'était pas le candidat du pouvoir parce que quand dafa doon faire face. et à l'opposition et au pouvoir parce que ña nga xam ne nii ay ministre lañ yu mel ni Thérèse ñëw taxaw du wax jusqu'au dernier moment ba mu des xaw ma combien de jour nga ñëw taxaw parce que na président woo na leen ne leen léegi bàyyi leen ànd leen ak alors que président boobu candidat yëpp dañ taxaw mu ne candidat yëpp kii laa si choisir la coalition choisir kii donc man pour man ce qui s'est passé au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar li créé loolu c'est l'APR parce que problème bi yëpp foofu la si seen biir la donc loolu laa si amoon lu may wax nga